ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى mbokk yi xéwal ak seeti na jigee ci seen xarit seen mbokk Serigne Mara Cissé muy kitaabul Wadduha di téere bu bëri njariñ te am solo lool doon téere bu toll ci 313 page lépp ay njariñ la kaaraange bayra jubale ay nit gàllaaju kër gis gu am solo lool te baax loolu ci wàllum xam-xam ak lépp lu lay musal ci wàllum jinne ak lépp lu lay jubóole ak sa borom ak lépp lu ngeen mënti yittewoo ci wàllum xam-xam 25000 francs rek lañ koy wecc juróomi junni rek nga am lii lépp yow mi ko yittewoo wooteel ci 77 617 70 44 wala nga woote ci 76 583 17 33 yaram danay fasu ni danay jagadi te amaana xaj na xalaat bu bëri bu xalaat bëree stress ñëw ba stress ñëwee lu gëmmoon rek feebar bu doon nelaw day yeewu su ko defee fa tabarka laa kàttan dootul am eh, kon nu ngi ñaan yàlla faj aajo yëpp fa tabaarakalaa ba poos yi man di def lu nit di mën a suturloo lu muy suturloo ñetti waxtu yu xéewal yi lu muy suturloo si tawat faju lu muy suturloo si fay njàngu eh, xelal yi fa tabaarakalaa ak jënd ordonnance yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen waaye ñun julliti ordonnance bu ñuy man di am dañ si war a boore alquranul karim ndax wanu nasilu min alquran ma huwa sifa wa rahmatul lil muhminin dinaa di wax ne lépp luy tawat ak tur bu mu man buñ ko man di tuddee doomu aadama mën na si am sifa si alxuraanul karim fi la si téeméer ak fukk ak ñeenti saar yooyu nga xam ne lépp lépp lépp lépp barkeel benn xarafu la si yàlla nangu rek mën na faj xaajo fi la kon noonu nga ko waxee liggéey nañ la ñuy wax woyofal yaram te lépp di alxuraan fi tabarakallah mu ngi suñuy boutique képp ku koy jëfandikoo te mooy loo xam ne machine mën na koy bañ ji gis te yow mu wóor la ne feebar Euh, bara si ñoo xam ne fu jant sooyee rek bu ñu kilo léegi libre lañ doon noonu la ñu demee ba jant yi génnaat day xeetu ngelaw yoo xam ne dañ lay connecté yooyu yeneen yu mel ni moom mën noo am ay saafaram si alxuraanu karim fa tabarakala mahamadul amin euh, muy la am solo lool la Hadji Mara tam di la santaat bu baax a baax ci tontu woowule ñu ñëw ci euh, drahimul kiis léeg nga dégg ko ne kiis drahimul drahimul kiis muy euh, ñaar tur yoo xam ne dañoo nduro waaye dafa mel ni ku ko xool rek xam ne am na différence drahimul kiis am na ak kiis fa ak kiis loolu moom macha allah Eh, comme ñu bëri dañoo tuddee xaritu njaboot gi yàgg na di koy defar mu nekk si boutique yi njaboot yëpp di si xewlu mooy ki nga xam ne xel xelam la bëgg muy yokk eh, ki nga xam ne bii bëgg na yàlla di koy dimbale duy jaxasoo duy absent bi fàtte fa tabarakalaa kiis day defar xel daraaximul kiisit fa tabarakalaa day jàppandal wërsëg eh, loolooy différence bi daraaxim benn dërëm mooy diraham darahim mooy dërëm yu bëri tegtal la si ne soo jëfandikoo te yàlla barkeelal la ko am dana lay yomb fa tabarakalaa xam nga nit dana di jéem war a am fa mel ni dafay jéem di télé wala dafay jéem di taxaw wala day jéem di dellu gannaaw yooyu yëpp nag mën na doon gàllankoor fa tabarakalaa nag su amee su la ko gàllankoor bu randature xéewal yi day si agsi daraaximul kii si yoon la boo xam ne lépp arxuraan la ñaan gu yéeme la macha allah képp ku ko jëfandikoo si kattanu yàlla ut am dina lay yomb si kattanu borom bi Mahamadul Amin hmm. Euh, muy la am solo lool mbokk yi di leen fàtt rek seen jotaayu xam-xam ba léegi rek El Hadji Mara Cissé numéro yaa ngi noonu nag di affiche ci baaru écran bi euh, ak euh, li nga xam ne moo di site web bi rek yéen ñi bëgg xam lépp li xew ci article yi rek yi nga xamante ñu ngi koy jëfandikoo ci boutique yi mën nga def rek 3w point wadduha point org mu ngi noonu affiché wala numéro téléphone bi 77 919 71 00